ginnaaw bi ko ubbee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril atum 2011 centre de santé bu Mbàkke Kajoor am na ay jumtuwaay yu bari ak personnel boo xamante ni liggéey bi ñuy liggéey wuute na ni ko Mamadou Fatou Diouf mi médecin chef leerale centre de santé boo xoolee ni mbindoo fi mu ne nii am na benn médecin bu fi ne ak équipe médicale bi gérer service médecine bi parce que am na ñetti infirmier ñetti assistant infirmier ak ñetti ASC ak deux dépositaires am na maternité aussi boo xamante ne nii maternité bi am na ñaari sage-femme ñoom ñoo koy gérer am na service d'imagerie boo xam ne nii am na technicien supérieur en imagerie bu koy gérer am na hmm, euh, cabinet dentaire boo xam ne nii technicien en odonto moo koy gérer am na laboratoire boo xam ne nii technicien en biologie moo koy gérer. looloo waral nag lim bu takku bi nga xam ni ñoo fay faju si lu jege ñeent fukki village yoo xamante ni ñoo ko wër ci ñetti région yi ko séq muy Thiès Louga ak euh, Diourbel looloo waral bari na lu ñu fiy nemmiku xeeti tawat yi nga xamante ni moo ci gën a fës. zone bi li ci ëpp ndox mi dafa am xorom tension moom lu fi bari la li ñuy wax hypertension artérielle moom lu fi bari la moom bu jàllee tam euh, maanaam feebaru der li ñuy wax dermatose moom tam lu fi bari la. ak euh, feebaru soqatu soqat nii ñu koy wax IRA infection respiratoire aiguë moom tam lu bari la ci côté yi moom ñetti feebar yooyu daal ñooy yi nga xamante ni ñoo fi ñoom lañu fi gën di faral di gis daal. waaye nag ñi ko centre de santé yëpp amee am na yenn jafe-jafe yoo xamante ni am nañ ko lenn li aju ci wàllu fonctionnement li ci des di loo xam ne mi ngi sababoo ci acte trois de la décentralisation bi nga xam ne waroon na dox diggante nguur gi ak communes yi nga xamante ni yu ci bari dañoo boot centre de santé yi. jafe yi ci ëpp moom mooy problème mu budget la budget la ndax centre de santé bi biñ ko defee mu nekk centre de santé ba léegi ci ay loxoy boppam rek lañ ko bàyyi ci lay dundee waaw maanaam amul budget kenn fekkuñu ci ci dara daal maanaam suñu amoon budget de fonctionnement di euh, am aussi un véhicule de liaison boo xamante ne ni activités yi ñuy def ci àll bi euh, dinañu ci jàppale pour ñu mën koy def euh, d'après liñ liñ liñ tëral li gouvernement bi wax lañ wax nee nañ comme maire bi maire bi moom structure bu nekk ci biir goxam rek moom moo ko war di toppatoo moo ko war di saytu même temps yëpp ñun am nañ ci ay problème ndax temps yële ñëwoon nañ fi coupé fi courant ndax bu njëkk état bi moo daan fay courant bi léegi nag avec seen acte trois de la décentralisation man ni ma ko jàppee ay problème yi kese la ñuy indil nag. jafe-jafe yi yëpp nag teewut centre de santé bu Mbacke Kajoor am na ak jublu bu am solo ci ak jëm kanamam bokk na ci yooyu li ci gën a mooy centre de santé secondaire li fi ñu toll nii waaye yéene mooy ñu def ko centre de santé de plein exercice boo xam ne day aju ci région médicale bu Louga te loolu ñi ko séq ñëpp muy kilifa yi loolu mooy seen yéene lépp loo xam ne ay matuwaay la di jumtuwaay yoo xam ne manqué na ko ñu mën ko ko dolli ba ab liggéeyam mën a àgg.